kooku moom am naa si. da nga ne booy booy bi. am naa si moom confiance. am nga sama confiance non ma kii tuuti tuuti bi nga tuuti bi ma wax moom ah? am naa si confiance tuuti baax. Ah? ah. du yàgg ñi fi ngay yëg ma gënal. Eh, booy tane ki ki nga yor si jikkoom. waaw ah, moo leen gën. Sall. ah Sonko moo leen gën. waaw du jox Casamance na ah. man loolu laa ragal ci moom de xam nga yéen loolu leen Macky Sall gëm loo xoolal Macky Sall loolu gëm loo ay ay day tere gàmmoog ay Casamance rebelle affaire dof yooyu ngeen gëm nii Sonko nit njaay la intellectuel Sénégal ka tax a jóg xam la ñii amuñu luñ ko taxal parce que xool nañ ci xaalis mënuñ koo taxal xool nañ ko si dafa sensible ay rébellion noonu la demee mais Sonko mooy bu baax bi yow. man de jàpp naa ci. ah jàpp naa ci. non Sonko boo ko jàpp xale yu ma xale man su ma su toogee nii ak nit mu ko nu Sonko dama naan mais kii damay bëgg xar xar la mos ne waxee sax da xam ne kii nit ak ak jëmm ji. ko mbéy. man kay ma xam nga booy xa loolu ma métti. li ma li ma gën a métti mooy. Cheikh Yérim bi naan Espagne daa métti na na toog dama non Sénégal daa métti te chaque jour Guinée ngi ñëw di fa am ay milliards wax waxi yooyu comme oto yi tamit oh oto yi xoolal oto yi dafa 1960 xam ma jaaxal daa leen ma jaaxal Sénégal yaa Sénégal bu ñu juddoo problème la courant ndox njàng mi liggéeyu xal liggéey liggéeyu xale yi liggéeyu xale yi ah yu baaxul mais loolu loolu il faut que ay du si ins ah suñuy maam yi loolu lañ fi bàyyi woon paa yu bu ñu jógee bu ñu ñëwee dañuy day dellu seen kër te seen kër yi nu meloon la mel ñaka war a changé amuñu dara booy di jël ay gaal nii xool booy di jël ay gaal ñaan Barça wala Barça ma ne booy Barça lañ jógee di dem Barça Barça lañ jógee parce que di ñu fi yaa ngi non non Barça lañ jógee dem Barça. mooy ba ne Barça dem Barça rek man tey ñoom dañuy dañuy jógee si lu kii xaw a tane pour dem si lu neex. Hmm. mais si lu safara lañ jóge tey tey dafa neex tey nga toog say clim ah comme Belgique yi Cheikh Elim Seck wala Bouba sama sama yor nekk milliardaire am TFM RFM ngeen ay milliards bi ba mu nekk Cheikh Elim nekk benn journaliste boo xam tey ji peut être mës nga bindal benn président toog naan noo xale yi toog jàpp espoir ins su ma lakkee sama loxo nii lakka bi di metti xam nga ni xam ne kii lakkam bi métti mm. waaye si kan la gën a métti du man mi lakk nit mën na ñàkk nga xool ala ah, kii ñàkk na mais moom mi dund ñàkk gi di yeewul ndékkiwul amul añuwul moo la gën a xam li nekk si mm. mën nga seetaan guerre gis ay blessé nga naan yoo guerre bi métti waaye soldat bi ñu dóor balu zone ak bali kaw romba si bëri koo xam ne guerre métti na maanaam kenn lu muñee xolu jàmbur il faut suñu dirigeant yi xam loolu noonu mm. te ko tàllee jaasi a dégg nga ah, bul ñëw ah, ah, di wax ni mën na kuy kii quoi tu vois bu la sama émission quoi yaa ngi dégg loolu laa gars yi ma loolu boo waxee na xam nga yéen seytaane yi bul bul encouragé booy jël gaal gi parce que lii ak lii di wax ay affaire yoonu quoi di kii noonu quoi mais maanaam ba xamuñ tolluwaayu nit yow tey gaal gaal bi mu gaal woon ah non non man si gaal mais du ma nekk bul dugg parce que sama situation am naa fi lu ma xaw a yaakaar di liggéey peut lolo lolo lolo lolo moo indi sama xel mu sell ak sama bon sens ba du ma ko jël mais peut être su ma su ma ji doon si yeneen circonstance tey ji ma ñëw sama papa sama papa sama papa newtu si gaañu sama yaay ya-, ya-, yaakaarul dara benn taabal lay teg ñaari gër caaf ñaari gër caaf benn nawe benn sëris ma gis ay moroomu jéegam seen doom yi leen yor ma gis ñu jóge Espagne yor leen ñu jóge France yor leen maa boobu man man damay pare pour sacrifier sama bopp pour sama famille nekk maam boobu nek nekkatul xaru mais jihaad la jihaad voilà jihaad la maam daa am lu lay xam da lay jam day day day piqué sa fort intérieur li li taalibe bàyyi naan dee laataa dee di ñëw loolu mooy dee laataa dee di ñëw voilà loolu la loolu loolu la quoi moo tax faut faut jamais dire jamais xam nga tey jii yaa ngi naan euh, li nga ko xam mu ne man du ma mës a cagatu wala parce que peut-être papam papam mi ngi lekk ni naan mu nekk jigéen moo xam ne ñi boo leen joxul ñu dóor duñu la may mën a mën a nekk caga moo tax faut jamais dire jamais loolu chinois yi naan il ne faut jamais dire d'un homme révolutionnaire tant que tant que il n'est pas mort chinois yi nee na nga wax ni kii góor yàlla la xaaral ba mu dee ba pare ndax tant que deewul jikko mën na changé loolu chinois yi wax. loolu laay wax quoi moo tax gars yi bi Cheikh toogee fële taal boppam naan na gars yi. na gars yi na na xale yi Espagne gën a métti fii man man ko Sénégal gën a métti te Guinée a chaque jour ñëw. te de bu ñu ñëwee dañu fi réussir kon bàyyil booy dem. bu ñu yore bi am 17 ans ñu jàpp ko yóbbu kaso tey mu taxaw doon ñun woon ñu leen taalal micro. waaw waaw loolu waaw du ñu exemple de. bi moo moo bi ay kilifa. ay Pawlish la ñuy waxloo ay Ousin Kayta bàyyi ñoom Adi ñoom ah bàyyi ay Adi Niass bàyyi ñi xam ne tey ji ay kàngam lañ ah, loolu loolu moo yàq dëgg bi daal maanaam ñi warul wax ñoo ñi warul wax ñooy wax da ngay da ngay théâtre benn théâtre infidèle ah, jox nga wax benn sumbulu nga tax fa di jooy sa jonaan so so ñu la nga wax boo fa tax lépp la complicé xale yu xale yu dof yi ñu mel ni ay bàjjen ñii ñoo dofloo ñëpp ñoom bàjjen yi ñii bàjjen xool ma dégguma sa ma gars yi maa ngi dëgg vidéo bi quoi sama bopp day day toj quoi ah. 어? 아? 송호여름 라디오만. 응.